génn na te génn ci parti ba ma nga ci opposition ba ñu seeti ki nga xam ne moom mooy Dabo. jërëjëf jërëjëf na ngeen def waaw waaw xale yi na ngeen takku liggéey de na ngeen liggéey ngeen xam loo leen am ngeen defar seen njaboot. xay man damay bëgg a jome man maa wax ak moom mu ne man dama defa ñetti at dama bàyyi xay daabo ma baro mu ne daabo may wa léegi lu doxale programme bi ni ñu ko doxale mu ne dama def ñetti at rek dama bàyyi ma ne ah, kon dina ànd yow ci loolu xay ñu dem ñetti at mu jot mu ne du bàyyi ko te ah baro waxtu bi jafa jot danga war a puus keneen toog so man mag laa man mag laa de waaye buguma loo xam ne nekkul du du daga daga bu jotee dañu koy wax mu leer ala mana tiyara kayra la barka man din koole si jantaale mon koole bantaale ko baro baro ko fontole kana ñaana ibi jeela kata iyono gongo hey man dama jomi wara man dama xawaaru man moo toog maa toog mu waar ñëpp a dégg app bi jot mu war a mu ne dee du bàyyi fu mu teg loolu yow boo waxee ak nit nit dégg li nga wax da nga a sama sa diggante moom affaire wax waxet yooyu nga xam ne si dëkk bi ñu jëlloo ñoo ko tam bu ko tamee fi dugal ko Gàmbi ñëpp dañuy def wax waxe baro ñankoole ibi joona sin caale anta bare kan la kon kon kun kunde gale kangang mandole kangang dobale soñole iyo baba ding ding ñabali no baba ding ding samba ding ding tanka yaya jame nonon ko so ke bankara ke sinci You understand my process? Yes. Because Dabo is, is best, no, no problem, is pit bag, you know. Baro, ah. give me some, later to, give afternoon because the, angry is not breakfast. The breakfast is not angry. To, to, left to end. ni danga wax loo xam ne ëllëg buñ la waxee nga ne yaa na neex na du ma bàyyi loolu góor moomu ko doo ñiit bool yow li nga ñiit amutul dara lu fa nekk xëy da nga wàllu am ne ñëpp a dégg nga woo ma ma ñëw ma liggéey ak yow nga wax ne man du ma li dul ñettaata ñettaata jot nga ne doo bàyyi foo ko tega man mag laa mënul xëy na mënutul nekk waaye dina uuf warama boot warama rongante ku taxaw pour suma parti bi nit da nga wax baro nit da nga defal loo xam ne ëllëg bu la wooyee nga ne yaa wax loolu hey xanaa man dama jomi mais da baro moo wax nit la def ñetti at joona mu ne du gën waaye am na lu xew de Gambie yaa nekk ñu ay ñaka fayda de comme que ñoo fexe ba Yaya Jammeh dem ñun baro jaaxuluñu xam nga fula bu ñu am mooy ñu yëngal gisam wara ñu gësal yëmbal It's not problem Senegal you have to afternoon e, ECOWAS. Because it's problem not that you get me in my leader. In my leader, no, no, in my leader, for ni, ni <laughs> Hey, hey!